salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi leen di siyaar maa ngi leen di siyaar di leen di leen baalu àq tabaski bi di leen baalu àq aussi di leen wax ni que yàlla na jàmm yàgg Sénégal euh, donc mooy profité encore di remercier sama fanseeg yëpp ku nekk ma naan leen fu ne ak fa nga nekk maa ngi lay baalu àq aussi waaye nag bu ci kaw baalu àq googu yëpp aussi may euh, profité aussi di jaale en euh, famille Zoula bi nga xamante ni ku ne xam na ni suñu xarit la woon ñu bokkoon benn liggéey bi ñuy def mu doonoon xale bu baax bu yaru bu correct bu civilisé aussi bu bëggoon bépp doomu aadama parce que tey boo xoolee bokkoon na ci artiste ñu gënoon a respecté man personnellement suma xarit la woon aussi mu amoon personnalité nag ba kenn mosu koo dégg ci dara lu ñaaw kenn mosul dégg mu wax la Zula wax na lii ak lii ak lii ak lii donc moo tax bi affaire bi amee vraiment mu touché ma trop ak euh, ku ne xam na ni nag euh, nit que boo ko xamulee sax ñu wax la dëjëm dafay metti waxatuma la sa xarit dañ ñëw ñu ngeen di gisante déggante ak yooyu quoi may ñaan yàlla nag artistes yëpp aussi vraiment ma leen koy jaal di ko jaal sama bopp jaal àddina yëpp ak yaayam papam ak ñi nga xam te aussi ñoo nekk waa ndar yëpp euh, ñu wax leen ni que yàlla leen yàlla aussi may xolu muñ ak famem bi nga xamante ne aussi ñoom ñoo ñoom ñoo gën a ñàkk quoi